SICODEV euh, di ko nag euh, kuréel goo xamante ni kon mun ay consommateur ñu yëngu ci wàllu développement ñoo yëkkati seen seeni euh, kaddu di sàkku nag ñu teggi loxo lu toll ci fukki baykat ak ñaar ñooñu ña nga bokk ci communauté rurale bu jokkul fële ca Louga ñoom nag caabi da leen féetee ginnaaw la ko waral nee nañ daal dañoo song benn tool bu ñu duppee maam tool wadd ko ndikulatur yaag yooyu kilifa nag ci réew mi daal moo ko moom ba waral mu jural leen situation boobu seeni naataango eh, di sàkku ci Cour suprême mu wax ci Amadou Kanouté directeur eh, exécutif bu eh, Sicodev Africa jokkoon na ci ak Faty Dieng Alié Mbaye dossier bi yegsi na fii ci cour suprême ñu bëgg nag ñaan cour suprême puisque nee nañu ko ñoom ñoo gën a indépendant yeneen tribunal yi que ñoom seen décision du lalu ci dara lu mooy yoon ñu bëgg nag ñu daal fexe nu ñu mën a gaaw a traité dossier bi parce que ñaari weer kuñ ne bàyyi nañ la bàyyi na gëndiku te mënuloo fexe ba génn naqar am na foofu naqar bi boo demee ci seen njaboot ma nga foofu parce que ñii ay béykat lañu nawet baa ngi ñëw seen njaboot a ngi toog foofu nekk ci jafe-jafe yoo xam ne ñoom dong ñoo ko xam jafe-jafe yu tar pour dundal seen njaboot parce que seen borom kër a ngi ci biir kaso ñu ne nag cour suprême ñu ngi koy ñaan mu mën a fexe nu mu mënee seet dossier bi saytu ko ci du mu gën a gaawee ngir ñii mën a génn mën a delluwaat ci seen njaboot